Moussa Kanté wala def li nga xam moom mooy bataaxal bi ci wolof bokk ci askanu mburkaat njiitum réew mi son excellence monsieur Macky Sall askanu senegal yéen waa mburkaat mbokki journaliste yi asalaamaaleykum li ñu tax a daje tey mooy yëgal njiitu réew mi ne askan bi fii ci mburkaat am na ñu bëgg a siif seen suuf yi nga xam ne moom président moo ñu ko may ñun waa Mbourkat Mbourkat biñ fi sànceeg léegi ëpp na li nga xam ne moom mooy ñaar fukki at ñu bëgg a tabax waaye ñu ëpp ci ñun ñu xamal ñu ne mënta ne ndax fii forêt la ba tax góorgóorlu yi néew di doole yi am na lu ñu fi defoon waaye dañ koo toj ba tax na bi nga xam ne toj nañ ko wala sax laataa ñu koy tojal waa Mbourkat taxaw nañ ab collectif di xeex di yëg di wàcc di kërti kërti ba ci 2017 bi nga xam ne président waroon naa ñëw cees ñu ne jot na ñun waa Mbourkat ñu fexe ba président Macky yëg suñuy jafe-jafe bis boobu. ci la ki nga xam ne moo nekkoon président collectif bi di Jules Diémé góorgóorlu ba jot président ñu damm loxoom waaye teewul mu góorgóorlu ba jot président jox ko bataaxalu ñi nga xam ne mooy askanu mburkaat décembre 2017 bi ko président liire bataaxal bi mu daal di wax ne yéen waa mburkaat naa leen may bërëb yi ngeen xas a jàpp muy seeni kër monsieur le président jërëjëf jaroo lakka yow jaaraama yow ndax dëggal nga sa kàddu déclassé nga lu tolloog 135 hectares monsieur le président yokku ci 166 hectares monsieur le président waaye tey jii am na ñoo xam ne xamal nañ ñu ne ah du ñu ñàkk te mooy bureau intérimaire bi nga xam ne moo fi nekkoon daan ñu demal ay réunion ñu waa Mbourkat saa yu ñu demee ba dikk nañu dalal leen seen xel ndax président li mu déclassé ëpp nañu kenn ci yéen du ñàkk ñu ànd ak ñoom monsieur président di du dundee yaakaar waaye tey monsieur le président la république yërmande bi nga xam ne ak ñeewent bi taxul nga déclassé hectare yooyu ngir askanu mburkaat am nañu taxaw di ay kilifa fii ci Thiès ne ñu suuf yooyu dañ koy xaj ci digg bi ba tax na parcelle bu ne léegi jël nañ ko suñuy loxo def ko 150 mètres carrés monsieur le président loolu doyul kat ñu ne ñu li nga xam ne moo tolloog juróom-ñaari fukk ci téeméer yoo jël nga xam ne ñoo war a dëkk fii ci mburkaat dootu leen am dara ndax teere ñu ngeen yor monsieur le président yëgal ne ñoom ñu noonu bu leen tabax ndax forêt classée ngeen ne ñu ànd ak ñoom tënku ci ndigal dégg ndigal bañ tabax. góorgóorlu yi doon tabax ñu toj ko te ñu ëlbatiku nañu du ngeen am ndax amu leen lu ngeen tabax terrain nu la monsieur le président ñu ëlbatiku kat ubbi ay buntu fële ne waa Thiès ku bëgg terrain ci mburkaat kay déposé ba waa Thiès kërti kërti fees fa dell di déposé monsieur le président la république ñu ngi lay ñaan nga wax kilifa yi def lool ne leen baax len ci seen alal te ngeen bàyyi alalu mburkat ndax askanu mburkat laa ko may. monsieur le président wax leen ne pré recensement bi nga xam ne defoon nañ ko fi ba tax ñu liggéeyoon ci ak préfet yi fi nekkoon boobu ba léegi di ci liggéey ak ñoom ba tey bi nga dé bi nga déclassé mbir mi ñoom ñu defaat beneen recensement boo xam ne dañoo jël en compte ñu tabax ànd ceeg bureau inter daal di jël en compte ñi nga xam ne ñoo tabax waaw suñu pen yi ñu tojoon nag suñu kër yi ñu tojoon nag ñu ne kat ñun bokkatuñ ci daal di jël ñu leen neex ba noppi ëlbatiku nañu yéen kat yéen ñi nga xam ne seen suuf amul dara bokk leen ci. monsieur le président de la république malheureusement pour ñun waa Mbourkat bureau boobu nga mooy bureau intérimaire bi dañoo war askanu Mbourkat dañoo nax askanu mburkaat ndax bi ñu laajee kilifa yi nga xam ne ñoo yor dossier bi nee nañ bureau bi yëgoon nañ ni terrain ku ko am bokko bureau bi yëgoon nañ ni terrain yi cent cinquante mètres lañ lañ koy def te ñoom musuñ ñoo wax dara kon war nañ nax nañ waaye yéen waa Sénégal yéen waa mburkaat yéen waa Thiès yëg leen ne loolu duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg suñu alal la président Macky Sall moo ñu ko may duñ ko nangu. président ñu ngi dellu di la jaajëfal di la sant di la gërëm ci taxawaayu kilifa gi waaye sa njaboot fii ci mburkaat ñoo ngi lay woo ci tooñ gi nga xam ne bëgg nañ leen koo tooñ ñu lay woowaat monsieur le président nga ëlbatikuwaat ñu nga nga gëstuwaat ñu nga gëstuwaat ñu waaye ñu naa mburkaat ñu ngi waxaat ne duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg amul luñ ci masla suñu alal la président mu ñu ko may wasalaam. maa ngi tudd Soxna Khady Gueye bokk ci ñi am terrain nii mburkaat extension témoignage bi may indi mooy ñun fii dañoo ñëw depuis vingt ans am na ñoo xam ne depuis deux mille un ñoo ngi fii dëkk fi yor seen i terrain nii ñu yàgg dem nañ ci autorité yi autorité boo dem boo commencé tabax eaux et forêt fekk la fa wala DSCOS ñu dem ba euh, autorité yi ni bu leen tabax man personnellement préfet bi fi jotoon a nekk daf ma ni ma bul bu leen tabax ndax bis bu ñuy séddalekat ñi ñu tere ñu bàyyi ñooy ñuy njëkk a am mm-hmm. te vingt titres yi ñu njëkk a joxe ñu ay terrain nii ñi ngi ci ñu jox leen ci vingt titres yi vingt vingt titres yooyu tey boo demee impôt et domaine ñoom nga fekk ñu teg seen tur ca kaw ni dañoo amoon lettre d'attribution te ñun ñu xam ne ñii amuñu woon lettre d'attribution kon mbir mi daal man nu ñu ko gisee mooy séddale séddale bukki lañ ko def comme niñ ko daan waxee daan ko wax depuis bu yàgg ba tey monsieur le président dañoo may ginaar ñaari ginaar ndax daf ñoo may zone bu ñu dëkkoon mu may ñu ko ba may ñu beneen site de recasement ñu mën a boole ñaari yëpp dëkk ci ñoo ñu ko jox nag autorité yi mu ko jox teg seen loxo ñu jël ginaar yi siddi leen ba ñu set fas yéene koo féeteyoo jël yax yi tànn benn parti bu ndaw ni dañ leen di mosal ci yax yi li si des ñoo ko aaki moo ñoo ko moom ñun daal loolu la ñuy xeex di ñaan monsieur le président mu gestu fii ñu fi nekk ay jigéen ay couche vulnérable rek ñoo fi nekk ay jigéen ay xale ay orphelin ay ñoo xam ne mënaluñu seen bopp dara ñoo moomoon seen kër depuis vingt ans nekk fi di ci góorgóorlu di fàkk di defar koy terrain nii sax mën nañ ne amu fi ndax terrain boo ci gis ne nañ ko borom fexe na ba def fa dara pour mën ko xàmme bind ci numéro am ak léppam ñu bëgg koo foqati si suñuy loxo kon nag ñu ñaan monsieur le président ndigalam gi mu joxe woon mu def ko mu décret ñin ay nit bëgg koo dindi monsieur le président nag gestuwaat waa Mbour 4 extension ñoo ngi koy tàllal loxo wasalaam. Jibril Samb. ma dégg coow bi ma ne loolu duma ko def damaa dégg billet d'urgence ma ñëw ba fii puisque moom mun maa comprendre je fais partie ñi fii ñëw ñi taxaw fii yëpp mun naa wax ne man Malick Ngiitu je suis le plus ancien ñu ñëwee fii Mbour 4 y pas de de brique boobu ba léegi bu leen tabax bu leen tabax man mujj naa def kii bii pen ñu ne bu leen tabax bu tabax yàlla des am nañu gis gis nañu fu ñu eh, kii fu ñu kii détruire man loolu mënuma ko xam quand on était là on faisait des commissions je faisais partie des commissions aller chez les imams à la préfecture au au gouvernance à la gouvernance yëpp j'ai fait tout ça léegi tey ñu ñëw ñu naan ñun les les non construits on n'est pas concerné loolu mënu nekk dans quel pays on est loolu moom mënuma ko mënuma ko Voilà, c'est pour cela que je suis venu pour témoigner. Ça ne peut pas être. Le collectif de Mbourkat Extension Authentique tient tout d'abord à remercier son Excellence le Président de la République Macky Sall qui a tenu parole et engagement par rapport au déclassement de la forêt classée de Bourkat où se trouvent non maisons et terrains depuis de 15 ans. Le collectif de Mbourkat Extension Authentique tient à informer son Excellence le Président de la République Macky Sall, aux Sénégalais d'ici et d'ailleurs, que nous sommes toujours dans le désarroi malgré la promesse ferme du Président Macky Sall qui a insisté pour que nos parcelles nous soient remises dans la semaine qui suit sa visite à Thiès. Mais malgré cela, les autorités compétentes ont décidé de ne pas nous donner nos parcelles. car nous avons des terrains nus, alors que ces terrains nus occupent plus de 70% de cette zone déclassée. Nous avons des inquiétudes, quatre inquiétudes. Première inquiétude, autant pour ma première inquiétude, le pré-recensement de 2018 n'est pas pris en compte par les autorités actuelles, alors que ce pré-recensement de 2018, fait par le collectif, est autorisé par l'ancien préfet et l'ancien gouverneur. Deuxième inquiétude. Après la remise symbolique de 20 titres par le président de la République, les autorités chargées de poursuivre ces remises nous disent que nos terrains nus ne sont pas pris en compte. Troisième inquiétude. Pourquoi des autorités demandent à d'autres citoyens de déposer des demandes d'attribution de parcelles sur le site de Mbourkat Extension, alors qu'il y a des populations qui se sont déjà installées et à qui le président a attribué ce site 135 hectares et un site de recasement de 176 hectares. Vraiment. Quatrième inquiétude, pourquoi diviser les anciens parcelles de 300 mètres carrés pour attribuer des parcelles de 150 mètres carrés alors qu'il y a un site de recasement Nous lançons ainsi un vibrant appel à son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, pour qu'il sache que la population qui a qui occupe Mbourkat depuis des années, dont une partie du déclassement est faite en leur faveur, 70% mm-hmm. de cette population faisait partie du recensement de 2018 et court aujourd'hui le risque de ne pas se voir attribuer leur terrain. Nous tenions ainsi à vous informer de cette situation désolante et inadmissible, afin que toutes les dispositions soient prises pour le respect de vos recommandations à ce sujet. Espérant que notre appel se fera entendre, nous vous exprimons son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall, respectation de notre très haute considération.